jabar def dem indi ku nekk fële yor xaalisam ñu ne kii sa jabar la wax wax wax waaye alhamdulilah rabbil ya. mhm. alamin dëgg rek ay poste yi ma fi lim sànq nga xam ni dong laa def ci fukki at ak ñaar yi nii amul ci benn poste boo xam dinañ la jox alalu askan bi ba nga koy mën jël alalu askan bi ñi koy yor dañ koy xam poste yi ma lim nii yooyu yëpp doo jotee alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo da ngay nangu waaye ñu xam ni que metti woon ci ñun metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñu njaboot metti na ci suñuy wayjur surtout bu la yàlla nattoo nga am wayjur bu mel ni man man sama wayjur dafa bâtir réputation ci réew mi avant ñu may xam mu samp am taxawaay ci diine di wax di jàngale di xutba di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar seen doom ci maandu yar leen seen doom ci lii ñu xëy jël taawam ni ko jël na vingt neuf man ni ma ko dunde metti na mais moom ni mu ko dunde metti na mais yàlla moo wax ci wall wal asr innal insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñii ya même yonent yàlla moo wax wal asr innal insaana la fi xuus doomu aadama bépp nag yonenteeg sëriñam ñëpp ci biir lépp lu mu def perte na ko illa lazina amanu wa amilu saalihaati ba mu des ñi gëm cay julli watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr nekk ci dëgg waaye ànd ak muñ yàlla moo wax loolu donc ñu ngi sant yàlla mhm. li ma leen wax sànq mooy li ma laaj rapport boobu am na mooy premier rapport man boog Mame Mbaye Niang bi ma gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo du xam ne mën naa cee wax mais sama àppalaay taala damay wax ni ko am na janvier 2024 bii nii la génn mat na ñetti weer xaw sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu pare rapport wu rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am na ñu jàpp ni que liñ ma laaj sax waruñ ma ko woon laaj waaye ngir njëkk ak teraanga ak wormaal ñama laaj damay ton donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax la ma waxoon démb mooy li ma wax tey moom laay wax. wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci Mame Mbaye jël na tarfatal ay ni nee naa la bu ñu ma woo dañ ko publier man maay yóbbu sama bopp donc ñu ngi sant yàlla kon jàppal ne que comme que yaa ngi ma gis nii ma taxaw mhm. et que man rapport boobu ngay wax aw trois wax mais am naa ko am naa ñaar yëpp

mais daal sama waxu démb mooy sama waxu tey ci incha allahu rabbi mooy doon sama waxu suba. politiquement sa candidat. waaw politiquement man gis nga ni que yow yaa ngi ma bëgg a wax loo sëñ gis nga ni que tey du waxu politique nee naa la réew mi dafa am période politique am période liggéey am nañu sénégalais yi wóolu nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que nag dal dafa soxla ci réew bi waaye nag. Euh, boo fàttalikoo rek man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa ki di sante yalla bu baax di sante euh, président Macky Sall bi nga xamni ni ma fal ci juróom-ñetti poste nek na fi président haute autorité nek fi président conseil d'administration bu AIBD nek fi ministre de la jeunesse et de l'emploi ñaar yoon nek fi ministre du tourisme. ñëwaat nekk ministre chef de cabinet delluwaat ministre du tourisme et des loisirs delluwaat nekk euh, du tourisme donc ñu ngi sant yàlla bi nga xam ni moo jaarale ci président Macky Sall ndomba tànk yooyu yëpp def nañ suñ kéemtalaay kàttan ngir jubal def nañ suñ kéemtalaay kàttan ngir taxaw ci dëgg def nañ suñ kéemtalaay kàttan pour que liggéey ak yaakaar bi sénégalais yi amoon ci président Macky mu am tey rusuñu parce que ci fukki at ak ñaar amul benn sénégalais bu mën a miim lim def ci réew mi ak lim yokk ci réew mi léegi nag tey euh, yàlla ak sénégalais yi tànn nañ beneen président mu indi beneen équipe ñi ngi ñaan yàlla mu may leen ndam ñi ngi ñaan yàlla mu may leen euh, taxawaay ndaxte li ñu dikk askan bi ñu def ko parce que njariñu lépp la loolu waaye ñu bàyyi parparloo bi ak wax ji ak leneen wax ju ñaaw mujjul fenn dama koy wax parce que dama bokk ci ñi ko dund juróom-ñaari at jàpp la sàcc nga sa njaboot say rak sa jabar sa soxna jël say photo jabar taf dem indi ku nekk fële yor xaalisam ñu ni kii sa jabar la wax wax wax wax wax wax waaye alhamdulilahi rabil alamin tey mhm. dëgg rek ay mujj post yi ma fi lim sànq nga xam ni loolu dong laa def ci fukki at ak ñaar yi nii amu ci benn poste boo xam ni dinañ la jox alalu askan bi ba nga koy mën a jël alalu askan bi ñi koy yor dañ koy xam post yi ma lim nii yooyu yëpp doo jotee alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo da nangu waaye ñu xam ni que metti woon na ci ñun metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñu njaboot metti na ci suñuy wayjur surtout bu la yàlla natoo nga am wayjur bu mel ni man man sama wayjur dafa bâtir réputation ci réew mi avant ñu may xam mu samp am taxawaay ci diine di wax di jàngale di xutba di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar leen seen doom ci maandu yar leen seen doom ci lii ñu xëy jël taawam ni ko jël na vingt neuf milliards man ni ma ko dunde metti na mais moom ni mu ko dunde metti na mais yàlla moo wax ci alxuraan wal asr innal insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñii ja même yonant yàlla moo wax والاسر ان الانسان لفي خسر دوم ادم بيب نك يونتك سيرين نيب تي بير ليب لومو ديف بيرت نكو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بامو ديس ني گم تي جولي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نيك تي دغ واي اندك موني دونك ني ني سانت يالا بما لين واخ سانك موي ليغ ما لاج وا رابور بوبو امنا موي بروميير رابور man boog Mame Mbaye bi ma gis waaye comme que nee nga ñu ñëpp ñoo ko gisandoo du loo xam ni mën naa cee wax mais sama àqulaay tàlla damay wax ni que am na janvier 2024 bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu pré rapport wu rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am na ñu jàpp ni que liñ ma laaj sax waruñu ma ko woon laaj waaye ngir njekk ak teraanga ak wormaal ñama laaj damay tontu donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a la ma waxoon démb mooy li ma wax tey moom laay wax suba wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci maam mbay jël na tarfatal ay ni nee naa la buñ ma woo nañ ko publier man maay yóbbu sama bopp kon jàppal ni que comme que yaa ma gis nii ma taxaw et que man rapport boobu ngay wax aw ma droit wax ci mais am naa ko am naa ñaar yëpp bu ma ci gisoon kon tey bu ma ci gisoon lu ñu ma ciy jiiñ wala luñ ma taxaw kon du ma taxaw fii yóbbu naa sama bopp bu yàgg. ah déedéet dama ni euh, dégg naa président bi wax ko euh, la reddition des comptes a pour plier les organes de contrôle. les corps de contrôle IGE Cour contre comptes nag loolu mooy organe de contrôle et reddition des comptes ci seeni rapport lay mujj donc ñu ngi sant yàlla mais daal sama waxu démb mooy sama waxu tey ci incha allahu bi mooy doon sama waxu suba. politiquement man gis nga ni que yow yaa ngi ma bëgg a wax loo sëñ gis nga ni que tey du waxu politique nee naa la réew mi dafa am période politique am période liggéey. am na ñu Sénégalais yi wóolu nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que nag dal dafa soxla ci réew mi waaye nag euh, boo fàttalikoo rek man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa. kima ma bu baye bu génnee langue politique bi ma génn langue politique bi légui kay altiné inshallah sax dimanche kay ma tak sama bagage dem outil liggéey. kenn attaqué rew ni président Macky Sall dafa indi jéego bo xamni ni koy def bu bari dañ contrôlé amnistie man jappalé won na ci dama ko ci jappalé tay jamono na wëndante moy ñu djéggi ben problème. président bi ñëw nii dafa bëgg réconcilier sénégalais parce que réconcilier sénégalais mooy indi dal boobu ba nit ñi ñeme indi seen bopp nit ñi ñeme indi seen alal nit ñi indi képp kuy sénégalais na liggéey ci loolu képp kuy sénégalais na fexe réew mi dal ku bëgg opposé am nga droit nga dem opposé mais fii ñu toll nii nii nii réew mi soxlawul loolu fii ñu toll nii nii nii dalal xel ñu bëgg indi seen xaalis balal indi ñu liggéey dem ci jàmm donc ñu ngi baal ñëpp donte métti na diis na leneen am na ñu ngi baal ñëpp parce que ala kulli haal lépp dina leer ala kulli alalu askan bi dafa dañ ko war a ñoŋal ala kulli képp ku def dara lu wàccoo yoon yoon dafa war a dal sa kaw mais teg ko ci dëkk ci ngor ci jub ak maandu keneen ku nekk ci leneen rek ci sa coobare bopp nga nekk keneen ku nekk ci leneen rek ci sa xalaatu bopp nga nekk ci réew mi fii mu toll nii mënuñu éviter l'implosion àdduna bi yëpp taxaw di wax ni que Sénégal day toj Sénégal day def leneen Sénégal day def yàlla baaxee ñu ba transmission du pouvoir am ci jàmm ak salaam wéy la leen loolu moo gën mais tamit ñu sàmm alalu réew li ñu gëmoon démb monsieur le ministre baal ma tuuti ma wax ci sama politique li ñu daloon démb li ñu waxoon démb moom la ñuy wax tey moom la ñuy wax suba ku ñu dégg da ngaa war a rendre compte ku am ak rapport askanu Sénégal ak leen a war a wax lu leer mais wax waxi waasu waxi kii waxi division waxi nord waxi sud waxi est ñun loolu jiguñu te baaxul ci ñun te bu ñuy waxati pour yàlla ñii fi yàlla tey ubbi leen seen bët ñu xool mais na wax di rafet na wax di jub na wax di maan kenn se ñu seetaan ñaanal leen ñu réussir parce que bu ñu réussirul du ñoom rek ay yàqule ñaanal leen yéene leen ñu wàññi dund wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi leneen mais ñu bañ a dugg ci ay wax ak créer ay problème yoo xam ni day visé nit yàq deru nit wax ci loo xam ne ala kulli haal après na fekk loolu laa bëggoon a wax remercier leen encore une fois waa ministère bi bu baax gis naa fi quelques personnes yoo xam ne xaw ma kan moo leen wax ngeen ñëw mais peut-être ci wàllu politique la loolu bu ma wàccee peut-être dinaa wax ak yéen mais di leen ñaan rek ni que jàppaleen ci njëriñu Sénégal jàppaleen ci njëriñu askan Sénégal jàppaleen